tey ñoo ngi ci kër euh, góor gi Mikayel Mbaye nga xam ni notable la ci cees waaye tamit doon koo xam ne ku ñu respecté la ci Thiès góor gi maa ngi lay jaale li ñu bokk nga xam ne cees gépp ñoo ko ñàkk ndox. waaw ñu ngi koy jàll. yéen yéen ay même même bi yéen ay ànd kon kon yéen lañ koy jàll. waaw euh, ñu di euh, nga ñàkk sa doom bu góor tey tamit tiis bi wàccaat sa kaw ndax mën nañoo ñëw ci fee yi. waaw waaw waaw comme comme ni ma la ko wax mbir yàlla moom. su ñëwee da nga xam ne mbir yàlla euh, kii nga xam ne mooy rakam di Ablaye ma tuddee woon ko Ablaye Jong le 6 août bi passé ci la ko yàlla moom ci feebar bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw euh, ñu teg ci un mois et quelque tey ki nga xam ne mooy magam ñu rawante ñetti at parce que kii vingt cinq quarante cinq am kii quarante huit ans moom itam gis nga yàlla jël ko mm-hmm. ci anam yi mu ko jëlee. kii nag moom dañ ko tooñ jël ko parce que ki ñu tudd dëkkal dëkkandoo boo xam ne mi maagee maag seen baay ànd nañu plus de kër ga fi nekk maa yore kër gi lu ñu fay def kër ga maa ko fay def maa leen may jabar maa leen may ngent may lépp parce que seen baay bi mu gaañoo man la leen bàyyeel kon nag xale bi yàlla def na ah mu dëgg lool dëgg lool nem ni mel te bàyyiwul ndeyam bàyyiwul sëram bàyyiwul kenn ba ni mu bi ni ñu réré mi maag pap ba pare ñu ànd mu néw ma ngi génn té ñew dem ñew fekk ci bunt ko gi tok ñu mu ne ko looy def fii ci heure bi mu ne ko sa nangam tan lay bi abdi da pap di réagir mu dem ko paak fi ci ci loxo bi c'était profond il a coulé beaucoup de sang bi ma andé sama soxna ñu dem dañu ñu kii li mu génn kii génn ci dérèt baré na kon nak nekk na loo xam ne lii lu tiis la lu métti la waaye nag comme noonu jullit lañu yàlla suñu borom mooy dogal te yàlla ñu ko joxoon ñu nangu ne dogal bi yàlla jël na segam man mii waaye juróom su ko may su ma yàlla soxloon du ma fi yendu sama moom kon nag dañuy nangu dogal bi nangu dogal bi mu dem ci demin doy waar di bésu bésu bésu tam di suñu année musulmane di bés bu rafet ñu agressé ko loolu yëpp am nañu yaakaar ci moom. am nañ ne ku mel noonu su demee war nañ ko sax jooy ñu war a sant su borom tudd yàlla rek xam ne rek yàlla rek yàlla moom rek mu mën lii. Euh, xale bi ci sa kanam la faatoo wala nan. ci sama kanam. maag sama soxna ñoo ànd yóbbu ko bi ñu ko yóbboo mu tëdd ñii ci banquette bi ñu ne ma kii kat. limu mu ci dër bari na mon père. fekk ko na dem ci district bi. fekk fi la joggé dem district bi ñu ne ko demal région mu dem régional régional fu ñu ko traité. Mhm. ba jox ko ordonnance bi. bi suma dafa démé bu ba tenir ñu yobbu ko mu dem ci bir sar bu ñu tëdd ma ñew té bi muy dem mu ngi wax ak mom ne ko pap pap pap pap mais pap bu yuul mhm. alors bi ma ko tiimee gis mu xawma xol ni ne ko pap waxul dal, mané ndaw si jox ma ordonnance bi ko jox ordre régional dem jëndi ko léegi mu ne ma non du ko jar mané ko an ah, kay jox nañ ko ordonnance mu ngi ni mu ne ma papa du ko jar yow mag nga ki nga tim xam nga dem na donc ah mu ne mu ngi dem na jarul jël ordonnance bi ma xam nak li am am na. man xale bi ko jam. daw na daw na il a pris la fuite gendarme ki police ñëw na. Mhm. def na enquête dégg nañ ma wax na leen sama déclaration.

ah am nañ ci crée parce que ñëpp ñëw nañu ku déggoon yaa ngi imaam fi njëkk bu mu ñëwee man lépp luy affaire tàngaat lépp mu ne ma bàyyi ma jël ko moom moo téléphoné Pape Seck Pape Seck sang mu ñëw mu ne daan ak lan mu ne ko lii ak lii ak lii ak lii ma jë ma jëg jëm mu ne ma deet bu dem mën naa koy fay yàlla xam na ban heure lañ ko dooma maa ngi nii toog sa sall ñu ngi nii ñoom ñëpp alors léegi nag heure bi dañuy xaar ba procureur def ne nañu xaar ba xam nañu def autopsie bi am des alors suñ defee autopsie bi nag bay delloo ñu ko. alors ñu doog a jël clé parce que ñun maag imaam dañu jàppoon suñ julee tàkkusaan ci lañ koy denc ba woo ki ko war a sang yëpp. Mhm. waaye nag bi ñu ñëwee léegi la de quartier bi ñëw fii léegi ne ma dañuy jël corps bi delloo ko hôpital ñu def autopsie bi parce que c'est sur ordre du procureur. Mhm. alors suñu defee autopsie nag suñu ko delloo nag. ñu jàpp euh, heure jour bi ak heure bi ñu koy war a kile communiqué ko ñëpp wax ñëpp mën ko fekkee. incha allah ñu ngi ngi leen koy nag jaal. Mhm. li ngeen def mooy doxu jullit doxu tànki jullit ngeen def parce que da ngeen ko dégg bàyyi seen lépp. ñëw ànd ak ñun tiis bi ànd ak ñun naxar bi ba wàcc nañu fi mu nekk naxar danañ dem ba naxar dootul kili ndax taxawaay bi donc ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di ñaan yàlla jàll bu ñu leen ko aw gaaw a fay. Mhm. waaye sunu borom mii am fay nag yàlla na leen fay. jërëjëf.